alhamdulilah xaqa xamdi walsalaatu walsalaamu ala abdihi wa rasulih muhammadin wa ala alihi wa asxaabih wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowm ddin amma baad mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di leen dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla mi nga xam ne moo jagleel diine joo xam ne moo gën ci diine yi muy diine lislaam diine joo xam ne ci ak jëfe ko ci la baaxug doomu aadama nekk ci la njubu doomu aadama nekk ci la tawféexi doomu aadama nekk islaam tër na ay tëraliin yoo xam ne yu màgg la ku ca jàpp da nga texe fii ci àdduna danga nga texe ëllëg boo dajeeg sa boroom li gën a dëgër ci tëraliin yooyee mooy tëraliinu maandu maandu ci la gépp mbaax nekk maandu ca la dalu xel nekk maandu ca la jàmm di amee ci kaw suuf maandu ci la boroom àq ju nekk di jote àqam donte néew na doole maandu asamaan ak suuf ci la taxaw borom bi tabaraka wa taala régal boobu mu teg ci jëflentey doomu aadama yi ñi di ko wax maandu aw tëraliin la woo xam ne du jeng du jeexital ci bànneexu bakkan faalewul ndax ki jege na la ci bokk walla sori na la faalewul ndax kii sama soppe la walla sama noon la faalewul ndax kii sama goro la walla ku ma sori la faalewul ndax kii am na doole walla amul doole faalewul ndax kii boroom alal la wala ku ñàkk la benn balance daal la yor di ca peese mooy balance maandute kon mbokki jullit yi jullit bokk na ci ay jikkoom yi nga xam ne munta tàggook moom su fekkee njullitam wér na mooy matal kóllëre ak fonk contrat lépp loo xam ne siñente na ko ci xeetu jëflente mu wekk ko fonk ko borom bi tabaraka wa taala nee na ñi gëm yàlla lépp contrat bu ngeen ko signé bu ngeen signeeti na ngeen ko fonk waxaat ne bokk na ci ñi nga xam ne texe nañ ëllëg bokk na ci ñi nga xam ne dañuy texe ëllëg mooy ñi nga xam ne suñ amelee kóllëre seen diggante ak keneen diggante dara dañ koy fonk dañ koy sàmm kon safaanub maandute mooy tooñ te tooñ lépp lu yàqu rek moo ko yàq moo tax borom bi tabaraka wa taala ca xadisu qudsi ba dafa wax ne yéen sama jaam ñi yéen sama jaam ñi man maa araamal tooñ ci sama bopp araamal naa ci sama bopp tooñ kon borom bi tabaraka wa taala du tooñ kenn wa ma rabbuka bi zallaamin mu teg ca ne maa ko def mu doon lu xaraam itam seen diggante kon bu leen tooñante kon bu leen tooñante kon jullit bi gëm yàlla du tooñ kenn du ko wor du weddi xaqam joo xam ne moo dox seen diggante lépp loo xam ne signé na ko ci kóllëre wala ci xeeti contrat daf koy fonk nam ko signé ndax loola ci lay ame tawféexam ci àdduna ca la koy amee ëllëg ci àllaaxira waaye ci lay mën a feeñale itam taar bi nga xam ne lislaam taaru na ko ci wàllu jëflante borom bi tabaraka wa taala nag ci xikmaam ak tëraliinam yu sew moo binde nit ñi ñu wuute moo leen bind ñu wuute doon ay pàcc pàcc yu baree bari am ñoo xam ne dañ leen bind ñu doon boroomi daraja yu kawe am ñoo xam ne seeni daraja àggul foofa am ñoo xam ne boroomi alal yu bari lañ am ñoo xam ne àgguñu foofa am ñoo xam ne ay njiit lañ am ñoo xam ne ñu jiite lañ am ñoo ne boroomi xam-xam lañ am ñoo xam ne amuñu xam-xam loolu nag borom bi tabaraka wa taala ci jublu mooy nit ñi aajowoo kenn ku ne aajowoo ka ca des moo tax borom bi tabaraka wa ca suratu zuxruf daf ne ahum yaqsimuuna rahmata rabbik ndax yërmaandey sa boroom ak lii muy joxe ndax nit ñi ñoo koy séddale mu ne déedéet nahnu qasamna baynahum maichatahum fi lxayaati dunia kenn ku ci ne sa dund ci wàllu la ngay lekk sa situation ba ngay dund borom bi tabaraka wa taala nee maa ko séddale wa rafaana baax fawqa baadin darajat nee na maa yëkkati ñenn ña ca kaw ñu ci des ma def leen ñu nekk ci suuf lu tax mu leeral xikma ba mu ne li yattaxida baaduhum baadan suxriya ndax kenn ku ci nekk ci ñooñee ca kaw ak ñi ci suuf ñi tàggatal la ka ca des ñu tàggatal la ka ca des mu di la liggéeyal moo tax liggéey yi ak métier yi ak man-man yi ci wàllu kàttan su fekkoon ne nit ñépp dañ caa tolloole ñépp bokk doon boroomi alal yu bari ñépp doon boromi kàttan ñépp doon boroomi xalaa ñépp doon boroomi marchandise di jaay kon dara du dox léppay taxaw ndax su ñépp di jaay kenn du jënd te li nga xam ne mooy borom bi tabaraka wa taala tëraliw yi mu yëkkati nit ba teg ko ca kaw ñu jàpp ne kooka mooy kilifa am keneen ku nekk ci suuf di liggéeyalu tuuti kilifa googu di jël ci lam yor di ko ko faye kenn ku ci nekk da ngaa aajowoo sa moroom su lu mel noonu amul woon kookee ñu tudde kilifa mooy xëy yor ak bale taxaw ca buntu këram di bale te bu boobaa lañuy wax ne mooy kilifa su boobaa loolu day suulu duutu tekki dara ndax loo bari bari alal am na yooyu woo yu nekk ci suuf yoo xam ne su ko nit deful yow ci sa jëmmi bopp yaa koy defal sa bopp kële itam alal jooji nga am ak man-man beeg daraja jooji borom bi tabaraka wa indi ko mu nekk ci suuf di liggéey kooku itam daf la tàggat ngay jël ci li nga yor di ko ci jox moom itam ak dundam man caa baax kon mbokki jullit yi maandute moom yi nga xam ne ci lam xel di dale ci la ab xol di sedde maandute moom bokk na ci li ca gën a fés mooy maandu ci jëf jëflenteeg surga koo xam ne yaa ko yilif ci wàllu liggéey ñu koy tudde ajir muy ka nga contrat mu am lum la war a defal kooku nag buñ ko tuddee borom société ba nit ña nekk ca suufam di liggéey ma nga ca borom entreprise ba ay nit nekk ca suufam di liggéey kookaa nga ca biir directeur u bureau ba am ñu nekk ca suufam di liggéey ma nga ca ka jiite chef de chantier ba ay nit nekk ca suufam di liggéey ma nga ca biir boroom usine ba ay nit nekk ca suufam di liggéey ma nga ca boroom tool bay liggéeyloo ay nit ñooñu ñépp ñu ci biir al ajir lislaam nag ngir nga xam ne day diine joo ne bàyyiwul dara itte jim jox boroom kàttan yi liggéeyloo ñu leen gën a néew kàttan boo koy xool day mel ne xawu koo jox lu bare bare bari ndax tooñ dafa mën a bari foofu moo tax bokk na ci règle yi nga xam ne tër na ko moom lislaam ne ñaar ñuy defante contrat kuy liggéey ak ku ñuy liggéeyal ñu xam ne ñi ci war a boole te ñu bokk ci biir itam mooy mbindaan ma nekk ci kër gi di liggéey képp koo xam ne da ngeen a dara mu war laa liggéeyal nga war koo fay xamal ne wala nga jiite ko ci ab liggéey ñu war leen a boole di fay xamal ne tàbbi nga ci biir bunt bi ñuy waxtaane kon règle bi nga xam ne moo jiitu moo di ñaar ñu séq liggéey ñu mën a doon bala ñoo tàmbali liggéey ba war nañoo xam liggéey bi ci boppam mooy lan war nañoo xam itam lim koy fay mooy lan waaye rek dama lay liggéeyloo nàngam nga ne ko loolu ñaata ngeen koy defaree mu ne ah yow de yéen moom lu ngeen joxe rek baax na déedéet du noonu ginnaaw liggéeyee la tax a jóg te moom it dafa soxla bay liggéeyalu te borom bi tabaraka wa taala moo leen boole tàggat kenn ku ci ne aajowoo moroomam na leer naññi rek bu kenn ndax kenn bu kenn ndax kenn lii laa koy defare mu ne ko loolu mën naa ko ci ñu bokk def mënuma ko ci mu dem seeti keneen loolu nag ci mboolem ñooñu ma lim ñépp dugg na ca biir moo tax Muusa alayhi salaam ànd ak ne ab yonent la bi mu ñëwee ba agsi ci Madiyan fekk fa nit ku baax kookee dafa waxanteeg moom nit ku baax ka dafa waxanteeg moom ne ko dama laa bëgga may kenn ci sama ñaari doom yii dama laa bëgg dencal kenn ci sama ñaari doom yi ma dencal la ko soxna waaye li nga may faye xam naa ni amoo alal waaye danga may liggéeyal juróom-ñetti at soo ko mottalee ba mu mat fukk loolu baax na yaa ko defal sa bopp soo yemee ci juróom-ñetti it loolu daal laa lay dencale euh, soxna si ne ko nag bëgguma laa teg aw tiis maanaam jàpp na ne loolu mu ko wax lu woyof la bëgguma laa teg aw tiis waaye nag xamal ne ci biir liggéey bi satajiduni insha allahu min alsaalihin li ci ëpp solo buñ duggee ci liggéey bi ba bokk di liggéey da nga gis ne ku baax laa danaa jëflante yow jëflante nit ku baax kon loolu lu am xikma la ci bunt boobu bi mu ko daataan wax lim koy li lim koy liggéeyal sax wax na lim koy faye ba noppi lim koy faye mooy dencal ko soxna si inni uridu an unkixaka ixdabnataya hatayn dafa njëkk a wax lim koy faye ba àggal door ko wax lim koy liggéeyloo ala an tajurani samaaniya xijaj kon ki ñëw di liggéey liggéey si fi yow na leer nañ ñi li koy fay ba noppi nag ngeen door a xool liggéey bi fu muy tàmbalee ak fu muy yem ak contrat bi luy nekk ci biir ak luy nekk ci bitti ñaareelu règle bi moo di ñi ñuy liggéeyloo mu nekk ci suñu suuf mu doon ay mbindaan mu doon ay surga mu doon tur wuñ ko mën a jox ay emploi nañ jëf jëflanteeg ñoom ci yërmaande ci yërmaande buxaari ak muslim génne nañ xadis boo xam ne abu dar moo ko nettali jële ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne seen surga yi seeni mbokk lañ seeni mbokk lañ yàlla moo leen def ñu nekk ci seen suuf mu ne nag koo xam ne mbokkam moo nekk ci suufam lu muy lekk na ko ci jox muy lekk lu muy sol na ko ci jox muy sol mu ne te bu leen leen liggéeyloo luñ àttanut ku ci liggéeyloo kenn nag loo xam ne diis na ci moom nee ne na ko ca dimbali na nga wàcc ànd ak moom ca liggéey ba ngeen bokk jàpp ci waaye rek taxaw jàpp na yow yaay patron bi am na liggéey yoo xam ne duutoo ko def faste say loxo bu ab camion taxawoon boo xam ne ay saakoo ci nekk benn nit nekk fa wala ñaar it ñoo koy xala wàcce ba mu jeex tàkk donte dañ fay yendu it noonu bokkut ak jikko bi lislaam di santaan dafa bëgg foo toll fu ne ginnaaw kàttan gi mate na ko mbooloo maa ngi liggéey te lii di wóor na la ne diis na ci ñoom bu dee lu woyof ci ñoom amul benn jafe-jafe waaye mu wóor la ne lii diis na ci moom ci ñoom ñëwal jàpp ca ba bañ lay wax nag ñoom demal toog suñ la waxee demal toog nag su boobaa itam du tee danañ xam ne jikko biñ soxla woon mu ngi ci yow rafetaayu lislaam feeñ na ci yow su boobaa mu doy ñetteel ba moo di ku ñuy liggéeyloo di su ko defloo lu mu mënut di su ko defloo lu mu mënut yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis boo xam ne muslim moo ko solo mu ne lil mamluki taamuhu wa kiswatuhu wala yukallafu min al amali maa la yutiq ki nga xam ne da nga koo moom sax waxuma koo signer contrat waaye jaam bi nga xam ne da nga koo moom jëflante bu rafet bii la wax ne nanga ko def mooy li li ngay lekk na ca lekk li ngay sol na ca sol te bul ko teg liggéey bu mu mënul ànd ak ne kooku sab jaam la yaa ko moom naka nag koo xam ne du sab jaam da ngeen a rek benn contrat am loo war a liggéey mu war laa fay kon kooku jëflante ba la chaque année moo war a gën a rafet ñeenteel ba moo di boroom liggéey bi bi muy liggéeyloo nit ki kóolute goo gi muy jëflanteeg moom ak dëggu goo gi mu koy won ci wàllu jëflante su fekkee xam na diine loolu ab yool la ci moom lu ñuy fàggoo ab yool la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy nett li ci xadis bu wér mu di dafa amoon ñetti nit ñoo xam ne dañ doon dox ba guddi ñu ñëw ci benn xunti xunti mooy pax mu yaatu moo xam ne day nekk ci biir benn montagne benn doj wu rëy ñu ñëw fanaan foofa biñ fa fanaanee yeewu fekk ndeke am na wenn xeer wu bërëngu ci kaw ba ñëw ub bunt bi te xeer woowu mënuñu ko ubbi mënuñu ko ubbi parce que seen doole matewu ko te ña nga ca biir ñu ne ah, lii de li ci pexe mooy kenn ku nekk seet sa jëf ji nga def ngir yàllay kese mu sell nga kerkeraanu ca jëf jooje mooy nga ñaan yàlla ci turu jëf joojee ngir yàlla ubbil leen xeer wi kenn ci ñoom mooy ki leen ñetteel daldi wax ne yow sama boroom man day mas na ma jël ay surga ay nit ñoo xam ne dama leen doon liggéeyloo ay emploi biñ ma liggéeyalee ba noppi ñépp ma jox leen seen àq ba mu des kenn ma seet ko gisuma ko mu dem kon bañu koo fay waaye waajaa demal boppam nee na ma jël la ma ko war a fay tegal ko fa dikkul ma ne ah alal ji au ma di ko fi denc naa ko jël ñu di ci liggéey ndax mu yokk mën a jariñ boroom nee na ma di ko def ba mu yàgg alal ji doon ay gëléem yu bari ay nag yu bari ak jur gu bari ay tool lépp juddoo ca loolee ma waroon a faye waaja nee na benn bis rekk waa ji ne jalañ daal ñëw ne ko jox ma sama lag ma deseeloon nee na ma ne ko xur wi ngay séen day li fi nekk ci ay gëléem ak i xar ak i nag ak tool bii ngay séen lépp yaa ko moom nee na mu ne ma bul ma reetaan waay nee na ma ne ko reetaanuma la lépp yaa ko moom bi mu xamee ni caaxaanuma nee na mu daldi dugg ci xurwa màng jur gépp yóbbu nee na wenn bëy wala xar sax bàyyiwu wala am xar sax bàyyiwu ko fa yóbbu lépp mu ne nag yow sama borom su fekkee ne loolee ma defoon yow rekk yaa taxoon ma def ko kon yàlla nag nu xéewale ubbil nu fitna ji nu nekk nee na xeer wa daal topp ñu daal di génn ñoom ñett ñépp di waaxu di dem kon ndekete njub ga ak def ga lu baax tuyaaba joo xam ne ànd ak rafetal na bitti bi waaye la ca nit koy yaakaar ci tuyaabay ëllëg loola moo gën a rëy kon mbokki jullit yi rafetal diggante kuy liggéeylu ak ka koy liggéeyal lu jaadoo jaadu la ci biir lislaam waaye ñaawal diggante ba nag luñ ŋàññi la ci diine lislaam te ñaawal gi bari na lool nag ay façon ak i defin yoo xam ne bokk na ca siñeenteeg waa ji war koo fay ba fay ko jot nga lànk bañ koo fay ñëw na di jël si payam weer wi dee na nga lànk bañ koo fay Buxaari génne na xadis boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee wax ne ñetti nit a ngi ñoo xam ne bu ëllëgee maay taxaw di leen layal su fekkoon ne avocat am na foofa ci kanam suñ boroom kon day mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa mooy taxawee taxawaay boobu nee na ñett ngi ñoo xam ne bu ëllëgee maa leen di layal fa seen kanam boroom ka ci jëkk maanaam maay kay layoog ñoom maay kay layoog ñoom waaye du maay ka leen di layal bu ëllëgee ñañ ñañ doon ñoo ñooñu laay nekk seen avocat waaye ñoom may taxaw contre leen ñett ñooñu mooy ñan ka ci jëkk nee na mooy koo xam ne dañ koo jox loo xam ne jëmmi lislaam a tax maanaam intérêt public la ñépp ko war a jariñoo mu yemale ko ci boppam kookaay ka ci jiitu ka ca des mooy nit ku ñëw fekk as gor mu jaay ko lekk njëgam loolu xëy na bëreetul waaye daana am ba ca tegu nag te tax ñu indi xadiis bi mu ne koo xam ne dafa liggéey loo ab liggéeykat liggéeykat ba def la ko war ba noppi mu bañ koo jox ab yoolam maanaam mu bañ koo jox ak payam nee na ñooñu bu ëllëgee maay taxaw di xuloo ak ñoom ñaareelu yi nga xam ne jëflante yu ñaaw la gannaaw bu bañ a fay jàllee mooy yeexe pay ga yéex pay gi lu mën a bon lu ñaaw a ñaaw la muy nit ki liggéey ba waxtu wi nga ne ko woon su jotee ma jox la jot na mu ñëw nga di ko laaj ay lay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadiis bu wér mu ne ci ngay liggéeyloo jox ko payam balaa aw ñaqama fendi balaa aw ñaqama fendi jox ko ak payam kon lislaam noonu la tëri noonu la jàngale kon léeg-léeg nga gis ku def lu wuuteeg loolu lool nit ki ñëw di liggéey di jaabante di dem ak ñëw lam la defaloon nga te ko ko fay ba day mujj dana ko jaral sax wàññi ca dara ne ko jox ma li ci des li ci des ma bàyyi ko ngir yàlla waaye xam nga ne googa ngir yàlla du ngir yàlla waaye ngir ñàkk pexe la te loolu lekk alali nit ci ak neen la musiba la dara jaru ko ñetteel bi ci yi nga xam ne warees na ko wattandiku mooy ñaawal jëflante gi mais di leen technique koo xam ne contrat moo dox seen diggante mel ne dafa doon ci yow loo xam ne koo xam ne lu la neex def ko ci xeeti naqaral ak xeeti metital ak xeeti lor lislaam tere na loolu ñëw ni ci xadisu anas ibnu malik radiallahu taala anhu bi nga xam ne buxaari ak muslim ñoo ko génne mu ne yonente bi alayhi bi mu dikkee madina te yorul ndaw ñu koy liggéeyal ci kër gi ne abu talha bàyyi taxam dafa jàpp ci loxo anas ibnu malik am na beneen riwaay boo xam ne yaayam moo jàpp ci loxoom umu sulaym ñëw ba ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yonentu yàlla bi anas kate ngi nii gone la waaye nag gone gu xellu la gone gu juble itam booba anas fukki at rek la am ne ko jël ko mu nekk sa xaadim moo tax anas ibnu malik mooy xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam nee na takkoo na ma ak yonent bi fukki at di ko liggéeyal depuis bi mu ñëwee Madina ba ni mu génne àdduna nee na musuma ne Anas lu tax nga def lii musuma ne Anas lu tax defoo lii maanaam musu koo gëdd ci lenn leen lu nekk daal bu koy yàq fexe na ba na mu koy yare Anas xam na ci moom nan lay mel su bégee ak nan lay mel su kontaanul melokaan yooyee rek la koy won léeg-léeg mu def dara bu ko xoolee xam ne moom def na njuumte mu gaaw rectifier lam defoon waaye jàkkaarloo moom ne ko lu tax nga def lii wala lu tax defoo lii nee na mus ko ko wax kon nag nakaak ñoo xam ne bu ñuy jëflanteeg ay nit da dégg saaga sa dégg kàddu yu kawe ya dégg coow gëdd ya dégg waxiin yoo xam ne sax waara day taali buñ ne laa ci làmmiñu jullit la génne da nga koy weddi kon loolu lu ma ta wattandiku la bokk na si njuumte yi mooy léeg-léeg signé contrat am mu wóor la ne am na ay intérêt yu nekk ci biir yoo xam ne su ngeen doxalee noonu surga bi wala emploi bi am na intérêt yu ko war a ñëwal te xëy na boo demee jàngul wala xamul yu mel noonu nga muur ko ko mu mel ne loolu lu amut la nga di ko jox la gën a néew te fekk xam nga ne boo jaaroon ca yoon wa la nga ko war a jox ëpp na loolu waaye yaa ko ëpp xam-xam yaa ko gën a muus dàq ko lijjanti ba noppi boole ca nag doonu tooñkat ragal yàlla moo tax àqam yooyee ne ca biir contrat ba nga ne ci cell nëbb ko ko loolu jaaduwut lislaam du ko nangu kon yooyu yépp lenn la ci yi nga xam ne mi ngi xew ci diggante lenn ci ñiy liggéeyalu ak ñi ñuy liggéeyal ne loolu duñu wax ne ñépp la waaye nag lu am la ba tey <coughs> lislaam bu ñëwee di àtte it lay doon ni mu bëggee boroom liggéey bi jub tënku ci diineem noonu la bëggee itam ki nekk ci suuf mu jub tënku ci diine moom itam yow mi nga xam ne yow lañ wóolu bàyyi la ci entreprise bi ngay liggéey borom atelier bi yow la bàyyi ci atelier bi ngay liggéey borom usine bi yow la bàyyi ci usine bi ngay liggéey borom bureau bi yow la bàyyi ci bureau ngay liggéey yëgal ne lislaam bàyyi na la xel lool yëgal ne sa boroom mu ngi lay contrôler mi ngi xam li ngay def ak li ngay bàyyi kon wattul di def ay pexe ci waxtu wi ngay liggéey si ak wi ngay wàcc léeg-léeg muy am buñ nee ab kayee fi nekk boo xam ne dañuy signé ci waxtu yi ñuy ñëw ak yi ñu fay jógee mu fexe rek ba teew na ca bis ba signé buy ñëw waxtu wi mu war a ñëw dana weesu buy wàcc waxtu wi mu war a wàcc du jot kooku ay tappale la yoo xam ne la muy jur mooy lekk alali jàmbur joo xam ne yeyoo woo ko na wattandiku alal ci ko borom wóolu mu jël ci lenn lenn loo xam ne si lu ko lu ko lewut la sañoo ko moomoo ko dalaa teg ci ab atelier nga di liggéey nit dikk na defar loola dara nga fay ko ci turu atelier bi bu borom ñëwee na ko fa fekk mu toll na mu toll woon lu bari ci yi ñuy gis nit di liggéey cib usine boo xam ne moo xam day defari dàll wala day defar meew wala yu mel noonu nga gis nit ñi wàcc gàddu poti meew yaag dàll yaag yu mel noonu di yóbbaale seen kër kooku musiba la su fekkee ne doonut ndigal loo xam ne ci borom isin ba la jóge kon yaa ngi lekk alali jàmbur ci ak neen lépp loo xam ne ab liggéey la loo xam ne borom dala faa teg di la liggéeyloo lum la jëlut jox la ko ci xolom bu sedd sañoo koo jël la nga sañ jël mooy pay gi nga diggéeg moom bu weer dee mu sañ la koo jox bu boobaa lislaam noonu la koy taxawoo ba mu jox la sa pay waaye yow it sañoo jalgati ci dara ci li nga xam ne moom la moom ki ñuy liggéeyloo ci yu mel noonu na wattandiku jëfandikoo matérielu liggéeyukaay bi moo xam ay oto la moo xam ay téléphone la moo xam bépp matériel boo xam ne dañ koo indi ci liggéeyukaay bi di ko liggéeye na wattandiku jëfandikoo ko ci loo xam ne moom personnel la ci moom yëfi boppam la lépp lu mu cay def na doon lu jëm ci biir entreprise bi wala ci société bi wala mu jëm ci usine bi waaye bu mu fekk loo xam ne liggéeyukaay bee ko moom boroom liggéey bi moo ko fa teg mu di ko jëfandikoo di di di ci yëfi boppam léeg-léeg nga gis ñoo xam ne lu mel noonu daf leen di gaar bu baax a baax nekk ci ay téléphone boo xam ne wóor na la kii la état bi moo ko moom wala borom entreprise bi moo ko moom nga composé rek di wax ak sa xarit boo xam ne xam nga ne su unité yi doon jàll su doon ci poche lay jógee communication bi du yàggee noonu ngay téléphoné di wax di wax di wax ba mu neex la nga daal di coupé te defe ne yaa ngi ci njub xamal ne yaa ki gàddu paakaam ci mbedd mi di sàcc yéen a bokk danga suturlu rek te kële ne fànn waaye loolu itam lu mat a wattandiku la bokk na ci yi nga war a wattandiku itam mooy liggéey benn bu nekk xëy na du ñàkk ay secret secret liggéey wut jaaduwut cekkani ci biir liggéey ba fu mu toll fu nekk di ko tasaare moo xam bureau la moo xam secrétariat yàlla moo xam lu mu doon dem na ba ci chauffeur sax chauffeur boo xam ne day dawalal nit kilifa tekkiwul ne lu mu xam ci moom lu nekk rek bu demee ci grand place moom lay waxtaane rawatina nag secrétaire boo xam ne ay mbiree jaar ci moom ay kayit ay yëf yu mel noonu ñooñu ci ñuy war a gën a gàtt ay làmmiñ gën a néew ak jaxasoo su fekkee mënuñoo tëye seeni làmmiñ ci lañ war a bokk la ngay liggéey itam xëy na liggéeyin ya ak yu mel noonu ñàkku ci ay àq yoo xam ne yu war a yam képp ci biir liggéey bi la doonut lu ñu war a tasaare ka fay liggéey ak nu mu mën a mel loolee war na ko xàmmee ba tëye làmmiñam ba du tasaare lenn loo xam ne warta tasaaroo na wattandiku itam jamono yiñ koy liggéeyaloo nga jël sa liggéeyu bopp teg fa di liggéeyal sa bopp lu dul nag boroom liggéey bi moo la ko digal moo la ca may ndigal léeg-léeg nga gis koo xam ne ci bitig lañ ko teg di ko jaayloo mu jël as marchandise boppam teg ko ca roq ba di jaay wala mu jël taabal teg ko ca bitti ci bunt bitig bi ku ñëw mu jaay ko ci wane ni lii sama yëfa lële mooy liñ may liggéeyloo loolu sañu ko lu dul su fekkee ne borom liggéey bi ci boppam da ko caa tàggu mu ne ko loolu mën nga koo def wàññiwul dara kon mbokki jullit yi yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ragal suñ borom tabaraka wa taala te xam ne suñ borom tabaraka wa taala nee na bis a ngi ñëw boo xam ne dana teg ay balance yoo xam ne yu maandu la yoo xam ne benn bakkan lum tooñoon beneen bakkan ak lu tuuti tuuti tuuti borom bi tabaraka wa taala danañ xam ne bu bis boobaa nee na danañ xam ne maa mën a calcul danañ xam ne maa mën a calcul lu tuuti tuuti dana ko génne ne ko yow diw sàngam ka doon liggéeyloo yaa jëloon ci moom lii te fekkewu ko yow diw ngam diw mi la liggéeyaloon te fayoo ko yaa fexe ba nangam joxoo ko ko te lool da nga ko ko waroon a jox kon loolu ay mbir yu mat a wattandikul yu mat a bàyyi xel léegi la bala ñoo àgg ca fa nga xam ne bu boobaa rëccu mooy am te rëccu ko duutu am njariñ gannaaw loolu li ñuy mujje mooy fàttali suñu mbokki jigéen yi di leen soññ bu baax a baax ci gën a góor waat ci xeetu yaru ak ci xeetu yor melokaan yi nga xam ne moom lañuy séentu ci melokaanu jullit boo xam ne dafay góorgóorlu di jàpp ci alquran ak sunna xam ngeen ni jàkka bérébu yarukaay la bérébu defarukaay la jullit bi bu sëlmalee julli na soxla woo sikkar yi mu war a def subhaanallah fanweer ak ñett alhamdulilah fanweer ak ñett laa allah wala akbar fanweer ak albaaqiyaatu saalihaat boo sëlmalee nekk ci loolu loolu lañ xam ci ku julli ba sëlmal xam itam ne jàkka ak marché bokkuñu Omar ibn al benn bés dafa nekk ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi walla sallam seen ñaari nit ñu yëkkati seen kàddu ca kaw mu ne nit demal wool ma leen mu woo leen mu xool leen ne leen yéen fu ngeen dëkk ñu ne ko taayif taayif fu rek madina la mu ne leen su ngeen bokkoon ci waa madina tey danaa leen duma ndax yéen a yëkkati seen i kàddu ci biir jàkka ji kon góor sax warta yëkkati kàddoom ci biir jàkk rawatina jigéen dañoo seetloo suñ mbokk yi lu ci bare bari ñu sëlmalee rek da ngay daal di dégg coow la day mujj soppi ku xaw a nuroog na marché ba di mel te nag jigéen ñoo xam ne ñuñ yaakaar lañ ne ñooy ñi gën a sell ci société bi war cee gën a jub ñuy séentu ci ñoom ne xëy na suñ wàlli ëllëg ñoo ko war a jur ñooñu séentu nañ ci ñoom yeneen i comportement yoo xam ne moo ëpp dal moo ëpp ab yar moo ëpp ak jàpp ci diine ji ba tax na ñu ngi séentu ci ñoom su fekkee ne am na ñu gëj a gisee bëgg nuyoo walla ñuy am lu ñuy wax ñu waxante ko ndànk ci seen biir ci kàddu yu dul yëkkati yëkkatiku gannaaw bu ñu defee seen i ñaan def seen i sikkar ba jeexal waaye seulement rek kàddu yi daal di jëm kaw loolu na doon loo xam ne nañ koy wattandiku diis naa ne mbokk yi soññee nañ ko ay yoon yoon kon noo ngi dolli suñ kàddooti ci seen kàddu di ñaanaat loolu allahuma ahdina li axsani al axlaaqi wal aqwaali wal acmaal laa yahdi li axsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha laa yasrifu anna sayyi'aha illa ant rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina cadaaba annaar ibaad allah inna allaha yaamuru bilcadli wal ixsaani wa iitaa'i dil qurbaa wa yanha an alfaxshaai walmunkari walbagi yaidukum laallakum tadakkaruun fadkuru llah alazima aljalila yadkurkum washkuruhu ala nicamihi yazidkum waladikru llahi akbar wallahu yaclamu ma tasnacuun wa aqimi alsalaa